ki ne ci bopp njabootu soxna may Maymuna gi muy Serigne Modou Mahfouz Mbacké yàlla na ko suñu borom doole sàmm waaye di ñaanal sunu waajur yi nga xam ne waxtu yi daaw mu yoon ànd ak ñun liggéey bi muy soxna Bali Mbacké bintu soxna Maymuna bintu Xaadimu Rasuul suñu borom di ko yërmande ju bare bare bare bare bare fa nekk ci barke weeru koor gi ci barke ay maamam di nuyu it soxna May bi yépp di ci jiital Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma mi nga xam ne moo jiite jataayu xam-xam yi ñuy taxawal ci bis yu mel nii ci laylatul qadr ak soxna Assu ak seeni rakk ak ñi ànd ak ñoom ci liggéey bi yépp di nuyu njabootu Cheikh Issa Dieng radiallahu taala anhu di teew ci jataay bii nga xam ne ñoom lañ ko duppe thème bi ñuy waxtaane mooy yitte tëju kawe ci yoonu murit tomb yi mu junj it muy ñeenti tomb yi ci tënk rek loolu lañuy ñuy waxtaane yitte kawe suñ ko waxee mooy dogu bëgg dara dogu ci dogu koo xam ne day ànd ak fas yéenee jëfe am na sax ci borom xam-xam yi yu koy tuddee al azmu maanaam pësteef dees na ko tuddee it pësteef dogu goo xam ne daal lu baax li nga dogu danga koo fas yéenee jëfe wala lu baax li nga xam ne da koy séenu wala danga koo mébét ngay dogu di jaar ci yépp yoon woo xam ne nii dala ko war a mën a may nga nekk ca loolu mooy yitte ju ci tënk rek nga xam ne sax boroom xam-xam yi nee nañ personnalité doomu aadama bu ne maanaam valeur doomu aadama bu ne mu ngi ci yitteem dangay gis ñaar ñoo xam ne ñoo bokk luñ sol mën nañoo bokk fu ñu bokk sax waaye kenn ka day ëpp yitte maanaam day ëpp ay bëgg-bëgg day ëpp pëstéef day ëpp it day gën a dog it ci yoon yi muy jaar yi ko koy may moo tax ñu ne personnalité doomu aadama bu ne day feeñ ci seen yitte wala xiima wala valeur doomu aadama bu ne ci yitte ju kawe lay feeñ ba tax na yitte ju kawe lu yàgg la ci taarixu doomu aadama rawatina ci lislaam lislaam yoonu diine yitte ju kawe la ndax sunu yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam sunu boroom da sant muy muñ ak a roy ci yonente yi nga xam ne dañ leen a tudde ulul azm muy yonente yi nga xam ne ñooy ñi ëpp yitte ju kawe ci mboolem yonent yi muy yoonu yitte ju kawe kon yitte ju kawe dana feeñ ci pas dana feeñ ci pas nit mën naa feeñal yitteem ju kawe pëseefam ci pas-pasam comme nam doon feeñi ci saxaaba yi ndax bu ñu xoolee njëlbeenu lislaam yitte ju kawe dong la ndax woote boo xam ne ci néeg la tàmbalee ñu di fa dajee ab diir bu yàgg walla ay ati at yoo xam ne ci néeg lañuy ñuy tëju wax la ñuy wax génnaat tey bu ñu doon wax ne diine ji ñu nekk noonu la meloon ci njëlbeen ka da nga xam ne kon la la laloon wala ña ca jiitu woon yitte ju kawe ak pësseef lañ nekke woon loolu buñ koy wax dañuy tàmbalee ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ak mbooleem saxaaba yi ci saxaaba yi sax ñoom dañ cee rawante woon comme ni suñ borom baaxoo amelee jamono rek lu ci nekk lu baax ñu di ci rawante ñoom it noonu lañ daa rawantee ci li ñuy wax yitte ju kawe masalan buñ jëlee sayduna abu bakrin mi nga xam ne ginnaaw yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam mooy ki gën ci jullit ci li borom xam-xam yi wax saxaaba yi nee nañ abu bakar daal li mu leen yéeme mooy lu baax lu ñu wax rek moom moo koy jiitu lu baax lu yonent bi wax rek nee nañ abu bakar musuñoo xam lu baax lu dul ne moo ñu ca jiitu mën nañoo wax ne yitte ju kawe kon kenn jiituwoo ko ci woon kenn ëppalewu koo ci woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seereel na ko ak àjjanaam ba tàyyi waaye teewut mu mel ne ku yëgul loola ak ñeneen ak ñeneen ci ñoom ñoo xam ne yonent bi seereel na leen seenu àjjana ba tàyyi waaye daa mel na yëguñu loola Seydina Ousmane li mu am yitte ju kawe moo ko ko may bu ñuy nettali Ousmane duñu wax ne Ousmane xeexkat ba Ousmane jullikat ba waaye yitte ju kawe moo ko ko may pas-pasam ci yitte ju kawe ci lislaam moo ko may suñ tuddee Abu Bakrin tudd Omar tudd ko moom moo ko mayit yonent bi fanaanee na fanaanee taxaw ba bët set di ko ñaanal ngërëmal yàlla li ko ko may mooy yitte ju kawe kon yitte ju kawe dana feeñ ci pas-pas kasaalika am na sax ñoo xam ne xañ na seeni xamuñu ko woon wala siiwut ci nit ñi ca moo ne day ay royukaay lañ ci yitte ju kawe masalan rek am na benn saxaaba bu ñuy wax abdullahi ibnu amrin mooy waajuru jaabir ibnu abdullahi mi ngeen di dégg jaabir ibnu abdullahi kuy jàng yàgg ngaa dégg ñu ne xadis sàngam jaabir ibnu abdullahi moo ko solo jaabir ibnu abdullahi waajuram siiwul waaye kenn xamut ku ko ëpp yitte ci lislaam ci misaal bi rek mooy wax nañ ne ba mu faatoo ca xare Uhud suñ borom dafa wax moom direct daal di wax yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la wax ak jaabir ibn euh, waajuru jaabir ibn abdullah lu ko suñ borom wax dane ko loo bëgg fekk moom faatu na loo bëgg jamono ji ma defal la ko mu ne ko xanaa nga delloo ma sama ruu ma delluwaat àdduna jihaataat ñu rayaat ci yoonu yàlla suñ borom ne ko sama kàddu dafa jiitu woon ne ñi faatu woon duñ delluwaat àdduna mu ne ko kon li ma bëgg mooy nga xamal nit ñi ak jullit yi payu ku faar ku dee ci yoonu yàlla nga xamal jullit yi payuk ku faatu ci yoon yàlla wax nañ ne aaya bi ci la wàcc walla tax wala taxsabanna allasina xutilu fi sabilillahi amwaata bal ahyaa inda rabbihim am na ñu naan sax sababu nusul bi mooy wax gi yàlla waxoon nag waajuru jaabir ibn abdullahi kon loolu yitte ju kawe la ci pas-pas saxaaba bi ñu wax it sayduna abdourahman ibn xawfin moom it li ma wax ci sayduna osman rek la ñuy wax ci moom moom day kenn ëpp ko yitte bi yonent bi ñëwee madinatul munawara da doon mbokkale di woo diw ci màkka di ko mbokkale kenn ci waa madinatul munawara wax nañ ne bi mu agsee ci abdourahman ibn awf milliardaire bi ëppoon alal ci madinatul munawara moom la dajeel moom abdourahman ibn awf moom la war a mbokkoon ñépp ñeeku ne ah abdourahman de dal na ci ndax daje naag saad ibnu rabia mi nga xam ne mooy ki ëpp alal ci madina ak ko wër waaye bisu keroog lañ xam dëgg-dëgg yi tëju kawe ak pasteefu Seydina Abdourahman ibn Xawf ndax Saad da koo proposé ne ko man maay ki ëpp alal fii ci gox bii nii di ma Madinatu Munawwara ca pare naa pour séddoo sama alal ak yow pare naa it pour séddoo samay soxna ak yow ñaari soxna la am xoolal bala ca gënal ma fase ko bu yiddaam jeexee nga takk ñaari tool yi gën a rëy ci madinatu a man maay borom pare naa it pour jox la ci bala ci gënal abdourahman di ko diglu ba mu àggal mu ne ko maa ngi lay sant ci sa pëstéef ak sa bëgg-bëgg ak sa yitte ak sa mbaax te maa ngi ñaan yàlla mu barkeel sa alal ca barkeel sa njaboot waaye de li ma la doon ñaan mooy alal ji ak soxna yi nga téye ko te wan ma ni nga def ba am alal moo ma gënal wax nañ ne saa saadi di xëy ca marché ba jàpp ci loxo abdourahman ñu dem ca marché ba ñuy jaay ci lañ demee ba abdourahman ëpple alal saadi ibnu rabia nekk ci ëpp alal ci madinatu munawar yaakaar naa ku dégg turam rek da nga ne saxaaba bu bari alal boobu kon loolu pësséef la kon pësséef dana feeñ ci dana feeñ ci pas-pas waaye dana feeñ ci jëf dana feeñ ci xam-xam bokk na ci majaalaat yi muy feeñ mooy ci xam-xam bi dana feeñ ci xam-xam nee nañ saxaaba bi ëpp lum solo xadis ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam sayduna abu hurayra la moom day ku yéeme mbir la ndax atum juróom-ñaar la dugg ci lislaam yonent bi fukk ak benn la wàccub liggéey maanaam quatre ans la fekkanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci am na ñoo xam ne nii début woote bi la ñu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba jeexal woote bi maanaam ànd nañu ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam vingt-trois ans douze ans yu ak yu onze ans yu madinatu munawara ca moom quatre ans la fekkante yonent bi solo ay hadis yoo xam ne ay alaafi alaafi ahadis ay junniy junniy hadis ba mujj nekk ci martaba bu njëkk bi ci wàllu bari leeg hadis loolu pëstéef la Abdullah ibn Abbas yàgg nañoo dégg turam wax nañ ne bi fi yonent bi jógee fukki at ak nangam la am benn walla ñaar te nee nañ kat moom la ñuy dàkkantale abrul umma foo réew xeet bi pësteef moo ko ko may kon pësteef dana feeñ ci xam-xam imaam Shafii nee nañ daa mënoon a mokkal ba nga xam ne bu tiimeeb téere ab livre di liir day jël benn loxo bi taf ko ci benn paas bi di concentré wu ci beneen paas bi ndax bu xoolandoo ñaari paas yëpp yëf yi day duggandoo ci moom mu mokkalandoo ko ndax xel mu neex pësteef moo ko ko may imaam Maalik mooy sëriñam ca dem na ba nga xam ne nii ku tudd imaam Malik tudd ko am na sax ñu koy jiital tudd imaam Malik am na ñuy jiital imaam Malik tudd ko pëstéef moo ko may loolu kon pëstéef dana feeñ ci xam-xam dana feeñ ci jëfe dana feeñ ci jëfe jëfe li nga xam sallallahu alayhi wa sallam mooy ki gën ci li yàlla bind moom xam na ko xam ne de mooy ki gën ci li yàlla bind xam na ko bu baax teewul danaa julli ca jàkka ja ba noppi dugg ci biirum néegam di naafi la soxna Aysa nan ko waaye yow yonent yàlla bi doo noppal sa bopp xanaa waxoo ne yàlla jéggal na la sa bàkkaar yu njëkk yu mujj yi mu ne ko Aysa afala akuna abdan xanaa bëggumaa doon jaam buñ sant man fi ne loolu lay wër jaam boo xam ne suñu borom damay sant ca péyam ya kon pëstéef dana feeñ ci dana feeñ bu baax ci jëf daanaka ñett yooyu mooy yi nga xam ne moom lañ cité woon ci wanne yi muy feeñ mooy ci pas-pas ci xam-xam ci jëfe sunu sëriñ nag Maulana Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul moom dafa dégg yàlla dafa xam yàlla li nga naan aarifu billaahi dafa mel ne xam gim xam yàlla dañu cee baaxe lu baree baree bari ba nga xam ne boo yoree sam xel ca teey ca diglum njàngaleem boo moytuwul wala bu la yàlla dimbalee danga mujj ni doon it yow it ko xam yàlla téeréem bii di masaalikul jinaan da cee junj loo xam ne ñun murid yi wala ñun ndaw ñi sax duñ ko seetlu lu baree bari loolu mooy ndeketee suñ borom tëjut bunt yi benn bunt dong la tëj ci bunta bi ne duutu amati lu dul loola rek war nañ koo mën a am ci pastéef bunt boobu mooy buntu bu yónnante rek la ne du am duutu amati lu dul tub yónnante rek martaba boobu ndekete yoo bal ilaa yawmi diin war nañ ko mën a am jeexagul loolu moo tax moom ci boppam buy yóotu lu rëy lay yóotu su ko jotee yóotuwaat lu ko gën a rëyaat noonu la doon doxale wax na ne yéen nit ñi yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg lu baax bu leen di jël ngëneel di ko jagleel ne ña jiitu woon rek ñoo ko war a mën a am yéen génération bi nekk ci jamono bu leen jàpp ne ña leen jiitu woon ñoom rek ñoo mën a am xéewal sàngam ak xéewal sàngam wala tuxassis fadla rabbin xat ala bi si taxaddumi faqat fa tajhala bul jël ngëneel rek daat ko yi ne ña jiitu woon ñoo ko mën a am ñun mënuñoo amati nangam ak nangam imaam Shaafi'i lam amoon mënuma ko amati Abu Hurayra lam amoon mënatuma ko amati ahlu badrin lañ amoon mënatuma ko amat déedéet benn bunt la tëj ne kenn duutu nekkatib yonent bu dul bunt boobu rek ci xeeti jàmm yàlla yi danaa feeñ ci xeeti martabay yàlla yi doomu aadama war na ko mën a am ci pëstéefam ci yitteem ju kawe te loolu dana gën a leer ci kanam tuuti sëñ bi sax joxe misaal lan ne fi ne ci wàllu taw ab taw bu dee sóob munoo wax ne njëlbéen ga bu xësee ba xiin xamoo ba xam ca tàmbali ba la taw bu bari ba di ñëw wala ca jeexal ba lay ñëw wala ca digg ba lay ñëw ca loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko sama xeet yi dañoo mel ne taw kenn xamul yiw wa ca tàmbali ba la wala ca jeexal ba la kon jàppal ne ba léegi yiw yi ak xéewal yi mi ngi fi ba tey sëñ bi moom mooy pëstéef mooy yitte ju kawe sëñ Touba amul ci histoire ku ko ëpp yitte ku ko ëpp ak dogu ku ko ëpp pëstéef amul bi fi sëñ Maam Mor Anta Sali wàcceeb liggéey 1300 atum 1300 1882 mag ñëpp dañoo dajaloo ne ko day sëñ Maam Mor wàcc na liggéey te yow ku ko déggaloon la moom it ku la bàyyi woon xel nga ku la joxoonum cër nga wax a wax ba àggal ne ko dañoo bëggoon ginnaaw bañ dëj bi jàllee la nga xam ne moom la yoroon ab taxawaay ba mu doon taxaw nga jël ko yow téye ko waaye sëñ bi nangu na leen lépp ba mu des nag lam yoroon ma yor doon ci ayut ndax pëstéefam ak yitteem bu ca nekkoon loolu mën na koo mën na koo bañ am moo tax wax na xasiidaam goo xam ne génn xasiida goo xam ne wax na ci ñett yoon ne nit ñi nee nañ man ab dof laa xaaloo xaalu safihun ñetti yoon la ko wax ci biir xasiida gi xaaloo safihun li xubbi xaalixi maaliki walam akun lil baraaya astaki darari samaw nit nee nañ damaa ngir bëgg bëgg yàlla ngir rëy gi ak li may yóotu li may yóotu daal ak li ma bëgg ni mu tax na ci ba ñoom nañ damaa dof waaye nag nañ xam ne walam akun lil baraaya astaki darari samay jàmbat ak samay tële du ma ko jàmbat kurut suñ borom fa qultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi walastu raadiya xayra al ilmi wa diin walastu arju wala axsha siwa maliki li annahu jalla yuxnini wa yunjini ba xasida ga jeex loolu pëstéef la bisu keroog lañ xam pëstéefu kii ne dafa rëy am na lu muy bëgg ñi amul seetlu ñépp dañ ne kii daal am na lu mu bëgg ñi amutub seetlu nee nañ dafa dof ba moom sax jël na xalimaam nee na ñoom nee nañ damaa dof fekk sama pëstéef lañ xamagul ak li may yóotu ak li ma bëgg nga xam ne ca at ma ba mu dellusee rek benn at lañ ci teg sallallahu alayhi wa sallam feeñu ko ca Mbàkke Kajoor ci atum 1301 comme ni ko sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana nettalee ci Irwa 1888 ne ko rabbi asxaabaka bil himmati walaatu rabbihim bi dars yoonu murit yoonu yitte la yitte dëgg-dëgg mooy yoonu murit sallallahu alayhi wa sallam baatu yitte bi muy tudd waa kër Sëñ Tuubaa yitte la ca boole maanaam yaral sew nit ci bëgg-bëgg yu yu kawe ci pësséef bisu ker ba mu dajalee daara ji ndax ñu bari dañoo taamoon am njàngaleem ngir leerug làmmiñ ak dégg gi ak laabir gi ci xam-xam bi ñu bari dañoo taamu woon même bi fi sëñ Maamoor nekkee sax bu daa jàngale ñu bari dañuy taamu jële bind bi ci sëriñ bi ngir xër gu muy xër ci lim lay jox leeraayu làmmiñ gi ak barkeelu xam-xam bi ak laabir gi ba mu dajalee mbooloo ma ca maandu ga xamal leen ne leen kat dafa am lu ma bëgg loo xam ne nii pësteef moo koy maye ak dogg moo koy maye leeral leen wax ja yépp rek la ca aju bisu keroog ñu ko comprendre doon ñoom ñëpp dañoo dem ak yéene ju rafet am na ci ñoo xam ne yéene ju rafet lañ demee xam-xam lañ bëgg nañ dem wuti ko faneen am ci ñoo xam ne xam giñ ko xam bañ doonee tu tànk ba nii xam nañ ne kii lu mu wax laneen a nga ca biir ca la ñu nekk ca biir it aw yiw dong lay doon ci lañ ne ko ñun loo bëgg lañ bëgg foo jëm fa lañ jëm loolu nag di laaj lu yàgg te metti keroog la pësteef tàmbali nag keroog la commencé di xool yu rëy rëy rëy di yóotu yu rëy rëy rëy lu dutub yónnante rek laaj na ko yàlla lu dutub yónnante rek bëgg na ko lu dutub yónnante rek pësteefam ak ci dogoom ak ci góorgóorloom sabablu na ko loolu boo jàngee histoire sëñ bi danañ la ko wan wala dañ ci xam lu baree baree baree bare ci misaal yóbbu nañ ko lu mat fanweeri at ak ñett yoo xam ne ci loxo yi noonu la nekk te taxut mu mas a yàlla benn yoon wala sax mu jëf loo xam ne nii jëf yi jëf yu ndaw yi rek la te lépp li ko wan li ko ko may mooy pëstéefam te keroog ba mu jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ni wàcceeb liggéey wuy ji boroomam mus sa def loo xam ne nii lam waxante woon ak borom bi ca tàmbali ba musu cee juyoo dara pëstéefam moo ko may mboolem awraad yim doon jëfandikoo pëstéefam moo ko may wér yi mu doon jëfandikoo wér gaa yu baax pëstéefam moo ko may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñu ko jox ko wérdu boppam woo xam ne nii benn wàll yu mosu koo jëfandikoo te moo gën a kawee mboolem yi wàll yu yor pëstéefam moo ko ko may loolu yi ci weeru koor la woon ca sarsaara ci bisub laylatul qadr la ko yonent bi feeñu jëxran jox ko lii ne ko sa borom bala bàyyi ko mu soññee ci nag aw nitam kuy di góor ak jigéen mag ak ndaw na koy jëfandikoo ndax ni ma ko yonent bi joxe ni mu amee solo li ci nekk ci yiw wax ci ay digge yu kawe kawe kawe te bari loolu di war a tolloo 1903 wala 1902 ca Sarsara daa junj lu baree bari nag naan yàlla am na lu ma dikk ci weeru koor loo xam ne bu dikkee di ko bind di ko wax ajran kabiran wa sawaban wa jasa wal waxda lii fi ramadaana najasa yiwu bari we xéewal gi ma diggoon ci weeru koor gi ci weeru koor gii ci sarsaara borom bi jox na ma ko dig ba def na ko sama du xat awsalta lii fii ramadaan maa rumtu min ka xablahu bi fayadaan yow de yow kilifa gi yow yàlla lan nga ma waxoon ci weeru koor lépp matale nga ko te loolu mooy jox ma wérdu bo sama wérdu bopp koo xam ne nii moom laay jëfandikoo duutuma laalati wenn wérdu kenn ajootuma ci kenn ku dul yonent bi kenn nekkatul kilifaam ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baana li kulli man lahu maxuulu anna wasilati huwa rasulu ubaayiu al yawma rasula bi xidmatin wa asalullaha wa asalullahu maa ngi jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis ni tey ci liggéeyal ko tey maa ngi xamal ñépp ne wala képp ku amum xel ne kenn nekkatul sama wasila sama diggante sama borom ku dul yonent bi ginnaaw ba mu amee jaar-jaar yooyu yëpp loolu li ko ko may mooy pëstéefam ak yitteem ju kawe yitteem ju kawe tax na ba bi nga xamee ne li taxoon muy génn mooy ram aw nitam ba loolu leeree ne aw nitam dana leen ràmm ñi nga xam ne tënku nañ ci ndigalam tey bàyyi tereem mu jékki-jékki di yóotu loo xam ne ca bunt yu kawee la ndax daa mel ne suñu borom da koo kasful wan ko mbooleem xéewali wala mbooleem maraati bi mu gis ne daal bee rek la munta am mu dib yonent waaye am na boo xam ne nii ginnaaw boobu mooy bi gën a kawe mooy payuk lu badrin mu teg bët bi foofu di xool loolu te day mel ne gis ni tey la woon badar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor muy xool loolu rek wax ak boroomam ba mu wax lu méttee mett yi mu koy jaay xamal ko ne ko yow yaa ko mas laaj ba dogu ci ne da nga koy da nga ko da nga ko da nga ko da nga ko am mu ne ca loola ne ca loola ne ca loola ba borom bi jox ko ci ka ci kaadaru sant yàlla nag mu bind fu baree bari ne borom bi la ma waxaale woon ak moom ba mu tegal ma ne lii la koy joxe bis ni tey doon naa ci waa ahlu badrin tiyaaba ji ñu am ca laa ca laay am bu ëllëgee yowmal xiyam addaniyal baaqi min ahli badri bi mawlidil muxtaari aalil qadri shahida allahu bi anni wahidun min ahli badri wa ma naani jahil basarani allahu bi anni wahidun min ahli badrin xaafa minni ljahil ixtasani allahu bi kawni abada min ahli badrin saa falaahin abada saalika fadlullahi yutiihi man yasha wallahu waasiun alim wax ay wax yu bari suñ borom boole na ma ci léeg-léeg mu ne suñ borom jagleel na ma léeg-léeg mu ne suñ borom bégaleel na ma ne ci laa bokk léeg-léeg mu ne suñ borom bind na nee na ci laa bokk loolu li ko ko may mooy pëstéefam bu kawee ak bu rëy ndax ginnaawam bari na ay aqtaab yu fi jaar bari na ay awliya yu fi jaar bari na xeetu nit bu ne jaar na fi waaye kenn musta wax lu mel noonu kenn musta yóotu lu mel noonu kenn munta musta sabablu ngir am lu mel noonu ku dul moom te li ko ko may mooy pëstéefam moom Serigne Touba kon yoonu murid yoonu yitte la ku xool ci sëñ Touba da nga xam ne yitte ju kawe dëgg mooy sëriñ Touba loolu moo tax yitteem ju kawe jooju daa bàbbeeku woon ba tuuru lenn ci murit yi nga xam ne moom moo leen yar ñu doon ay boroomi pëstéef yu kawe ca loolu mooy tombub ñetteel bi mooy jël ay exemple ci yoonu murit ñoo xam ne ni daal pëstéef bii xamuñu woon nitu yàlla bu fi jaaroon koo xam ne saw nit xeetu pëstéef bi lañ amoon wala xeetu yitte ji lañ amoon xoolal sëñ Maam Mor moom ak sëriñ bi bokk ak moom lépp nee nañ sax jàngal na ko daan naa fi la téeméeri rakka kaamil bi xoolal yu baax yooyu yëpp nga xam ne ci histoire xamoo woon nit ku baax ku meloon noonu waaye lépp xoolu ko daa jël léppam jox ko Serigne Touba loolu mooy yitte ju kawe ndax xam na ne jox boppam sëriñ Touba ànd ak moom moo ko mën a may lenn ci yim soxla woon moom rek doy na ci pëstéef bu kawe. mooy ñoo bokk lépp jàngal na ko nitu yàlla la aarif billaahi la aalim la allaama la mboolem sifa bu baax rek mi ngi ci moom waaye xoolal nim mu déggale woon sëñ Tuubaa xoolal ni mu juboo woon ak sëriñ Tuubaa ca loolu li ko ko may mooy pëstéefam bu kawe maam Cerno Birahim ndaamal daaru moo ne day bu ñuy li maam Cerno dama koy faral di wax lu bari digganteem ak sëñ Tuubaa dañuy jàpp ne am mag moo xam ne daa nekkoon ak sëñ bi la waaye ndaw la woon ndaw loo xam ne nii mën nañu ci zahir ñun ñii la doon tollali at wala ñu mage woon ko ci ay at jamonoom ak Serigne Touba ca metti metti ya mooy dem Ndar gaag bàyyi gi ñu ko bàyyi woon a njaboot ci soxna Fatou Issa mii waajuram mu jigéen daana ko ko xamal lu bari bu ko def mag bul bu ko def koo bokkal ndey ak baay wala koo bokkal waajur na nga ko deful taalibe na nga ko liggéeyal na nga jéem a xenc lu la may lu la may ngërëmam loolu it la doon dox pëstéefam moo ko may juróom-ñaari at sëñ bi jógee yépp lu ne dégg na ko ci noppam taxul mu bàyyi rumeur bu ne wax nañ ko sëñ bi wàcc na liggéey sëñ bi sànq nañ ko lu ne ca taxul mu geestu wala mu def loo xam ne nii bu sëñ bi ñëwoon fekk ko ca dana am kersa sëñ bi it gërëm ko woowee na ko tur wu ne xeetu tur wu màgg wu ne woowee na ko xeetu ngërëm gu ne bind na ko ci leetar wan na ko ne ko gërëm naa la àgg na ci sax ba ne ko leetar bi yàlla moom ma ko bindloo nee na gërëm naa la na nga xam ne leetar yi bi wala mbind mi mi ngi bàyyi ko suñu borom ca taxul mu wàcc yoonu charia wala aqiq di ko dund borom daaru doy na sëkk ci pës séef ci yoonu murid bu sëñ Tuubaa amoon ku mel ne moom rek doy na sëkk sëñ Mbàkke Buso ci misaal sëñ Mbàkke Buso borom xam-xam yi ñoo ne dafa am xam-xam borom xam-xam yi jamonoom ñoo ne sëñ bu so daa am xam-xam ñun moom tuuti nañ ci wax ne sëñ Mbàkke Buso am xam-xam aw nitam boromi xam-xam yi jamonoom ñoo ne sëñ Mbàkke Buso daa am xam-xam sëñ Mbàkke Buso daa ragal yàlla wax nañ ne sax takkoo gi mu doon takkoo sëñ bi àggoon na ci ba yaram wi sax daanaka daawul jëfandikoo lu bari jëmm ji tuuti lool ba nurootul nit ngir takkoo gu bari gi mu doon takkoo sëñ bi ak tëju gu bari gi mu doon tëjoog sëñ bi doy na ko sëkk rek mooy sëñ Tuubaa moom la dénkaane woon ginnaawam ne na ko taxaw loolu doy na sëkk mu ànd ko ñi nga xam ne ñoom la tuddoon ca taxaw ba kooku doy na exemple ci positif ci yitte ju kawe Cheikh Issa Diène miñ duppee bis bi sëñ Issa doy na positif ci yoonu murit am na ci sëñ Tuubaa lu kenn amul ci sëñ Tuubaa ña ko fa jiitu woon ak ñu ñëw ginnaaw diir bu gàtt ci bi mu sëriñ bi la làq ngërëmam ci diir bu gàtt la ko sëñ bi boolee ki nit muy defare àgg na ci yàgg gum yàgg a seral xolub sëriñ bi ak yàq yàgg gum la yàgg a làq ngërëmal sëriñ bi li waroon sëñ bi yëpp danaa ko wax naan ko bul fàtte isaag waa këram li waroon sëñ bi sëñ bi bu toogee lu ne ci wetam rek danaan ko bul fàtte isaag waa këram xer yeeg bant yeeg sàkket yeeg néeg beeg puj beeg lépp daa wax naan ko bul fàtte isaa ak waa këram loolu lu ko may pëstéef moo ko ko may bi mu nekkee fii ci njaareem pëstéefam moo ko mayoon liggéey bi nga xam ne sëriñ bu mag bi bokkoon na ci yi ko gën a ñor muy jumaay njaareem mu teg ko ci loxoom loolu pëstéefam moo ko ko may pëstéefam it moom Cheikh Isaa ni nga xamee ne noonu la jaxasoo woon ak lenn ci mag yi rawatina sëñ Balla Fally Dieng nga xam ne ñëpp seere nañ ne xaritam la woon ñu ànd liggéey bi ak sëñ Mandoumbe ñoom ñett sëñ Bay jaxas sax wax na ko wax lëf ci Cheikh Issa ak Balla Fally Dieng lu dul ne ñoo gëm seenu sëriñ yow daal dalal li miim sëñ Balla mi nga xam ne moo Cheikh Issa histoire saxal na ne ay xarit lañ woon ca jaxasoo woon nañ bu baax a baax a baax loolu njabootu Cheikh Issa gi xam nañ ci dara njabootu Sëñ Balla yi xam nañ ci dara Sëñ Balla Fally moomu sax bala ñuy ñëw ci digganteem ak Cheikh Issa mën nañ cee waxit moom it pësséefam li mu ko may ci yoonu rek wax nañ ne bi mu nekkee fële ca njompe ca mbaakol dëkk bu ñu naan njompe dane woon ab xaritam suba damaa bëgg a siyaare ji ku baax ba dogu ci ki ñuy wax fa daaru salaam muy sëñ bu mag booba sëñ mi ngi daaru salaam atum 1886 la woon loolu nee nañ ba suba ba jotee rek taw bu bari sóob ca jamono jooju nawet moom li ñu baaxoon xam dañ koo fonkoon lool ku taw bu njëkk bi raw mën nañ ne nawet bi raw na la waaye dafa bàyyi taw baat njimaan yépp dem ba ci daaru salaam mu jaayante sëñ bi sëñ bi na ko xabil naa war a dinaa mu delluwaat njom di àggale liggéeyam looloo ko may Balla Faali defar sëñ bi wax na ko ba tàyyi Balla Faali defar naa ko ak mujjantalam ay nit ñëw nañ ci ba ci moom ba tàyyi mu ne leen defar day laaj taxaw ci amatuma jotug defar demal ca Balla Faali defar naa ko loolu boo demee Njaareem dana am kër guñ lay wax ne la kii la sëñ Tuubaa doon waxal jëmm jooju ba léegi màggal gu mag lañ koy defar ca Modaay dëkk bi naan Modaay ca Njaareem mooy ka sëñ Tuubaa waxal na ko demal ca Balla am na jëmm joo xam ne xañ na ñu bari xamuñu turam waaye dama ne woon su ma doon wax ci pëseef ma tuddee turam rek doy na muy sëñ Modou Lo Dagana mbiram lu daw yaram la sëñ mutloo Lo Dagana dafa bëgg sëñ Touba lool jaayanteeg sëriñ bi dem diir bu yàgg gisatu sëriñ bi nammeel googu noonu ak mbëggeel googu jàpp ko ba nga xam ne daa mel ne daa am lu mu yëg ci yaramam mu bàyyi ko dëkkam boobu ñu wooyee kokki guy sëñ Moussa Ka nee na talaata jam bàyyi ko ci kokki guy wax ay mbokkam ne danaa ko seeti danaa seeti sëñ bi fu mu nekk danaa ko gis talaata bisub talaata jëm génne kokki guy ne day wëri ku baax ba at ma dellu siwaatee ca talaata jooju la soog di gis sëñ Tuubaa atum lëm la doon wër sëñ Tuubaa ngir gis jëmmam ji nee na talaata jam jam tàggoo ca kokki guy talaata jooju la gisaat sëñ Tuubaa ca Gabon ba mu gisee ku baax kii ca déwén sa wala ba mu yeggee la ànd ak borom Daaru Salaam ñëw euh, seet si ku baax borom daaru salaam moom it doy na sëkk ci tëju kawe lim taxaw sëriñ Touba ni ko sëñ bi bëggee woon nga xam ne fu mu ko masaa gis rek ak àll ju mu nekk day muñ li sëñ bi wax ci moom moom it doy na sëkk pësséef ak yi ju kawe waxuma la sax murit yi àndoon ak sëñ bi waaye pësséef boobu dafa feeñoon ci njabootam moom sëñ bu mag ay doomam ay sëtam sëñ Modou Moustapha jumaa ji pëstéef moo ko taxawal ndax tolloon nañ ci bi mu waxee loolu ñu bari dañ doon xanaan sëñ bi day gént jamono ji ni mu naqaree mu naan day taxawal jumaa joo xam ne nangami hectare la wala nangami mètre yoo xam ne da ko bëgg a taxawal wala tabax bu rëy noonu xam ne ay millions yi millions wala ay te nit ñi amuñu lu ñu lekk tubaab yi ñu ko tegalee li nga xam ne ci anam boobu lañ ko war a mën a liggéey ci pëstéefam ak dogoom ci la jiitoo rakkam mi fekk ko ci ak taalibe ba mu taxawal lii mu taxawal mooy jumaa ji nga xam ne ku fi ñëw ci njabootu Serigne Touba gi wane nga ci pëstéef ba ci Cheikh Mouhamadou Fadal Cheikh Mouhamadou Mountakha Bachir mii nga xam ne moo ne ci bopp njabootu Serigne Touba gi yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko te yeggale ay sumbam moom mooy pëstéef moom mooy yitte kawe mën nañ cee wax rek xoolal daara ju mag ji yëkkati boo digloo bu baax setantal keroog wax jam wax danga naan nag lii mooy yitte ju kawe nee na jàngukaay yi daa gis ca Basra di ko gis ca Iraq di ko gis ca Madinatul a di ko dégg dégg ca Màkka ca foofu la kàngfoor yi génn ñoom Imam Malik ñoom Shafii ñoom Abu Hanifa kàngfoor yi yëpp ci daar yooyu lañ génn nee na damaa bëgg noonu mu meloon ñoom ñuy laxas di ñëw sama daara jii di Touba nee na àpp naa ko fi léegi téeméeri at même bu ma ko fekkewul loolu mooy yitte ju kawe da ngay jiitu ñu fekk la ci ca loolu fu mu ko jëlee. ci ay waajuram fu mu ko jëlee ci magi yoonu murid fu mu ko jëlee ci maamam Seexul Xadiim waxuma la góor ñi nga xam ne ñooy murid waaye soxna Maymuna mii nga xam ne ñu ngi ci biir këram ca dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mosu ñoo xam pëseef mu mel noonu ci jigéen baax na lool laylatul xadar baax na lool ñuy nettali ji nit ñi ak ndaw yi pëseefu soxna Maymuna radiyallahu taala anha soxna Maymuna fii ci ay boor yi 1848 su ma juumul sëñ Fallou Garas bi mu nekkee daaru daarul Muxti laylatul qadar gii muy taxawal dara dara warulu ko lu dul dàkk bëggug sëñ bi la ci doon la ci doon seet mu xool xool xool ne sëñ bi xamul lu lu lu mu gën a sopp alxuraan mu ne xaaral ma dàkk bëggam ci alxuraan daal di dàkk bis bi nga xam ne mooy laylatul xadar keroot bi bi ko loolu di dikkal sax aal jooju nee nañ ci bisu laylatul xadar la la ko aal ji dikkal te daarul moot mu lijjanti ba am ñaari ginaaram ci anam yu metti sax la ko amee defaral ko boppam ci passeefam wax nañ ne ba mu defaree ginaar yi ba noppi sax jafe-jafe yi yi njëkk feeñ mooy amutoon oto bu ko jëlee daaru moox ci indi ko Tuubaa mu dogu ci ne faaw leer reer bi ma togg nii ki fi nekkal sëñ Tuubaa moo koy moo koy jëfandikoo te boobu Cheikh Mamadou Fadil moo fi nekk guddi na lool mu ñëw sëñ mu daaw a sëñ mu daaw a ball ñu wër wër wër daamar gu yóbbu soxna si Tuubaa wax nañ ne Ahmadou Mokhtar Mbaw moom lañ mujj àbb otoom mu ñëw Tuubaa ak si guddi lool ba sëñ Fallou fatu na wax nañ ne sax bëkk néeg bi nga xam ne moom la dajal ci kër gi da koo xamal ne ko dëgg yàlla ñemewuma ko ñemewumaa yëg lu bàyyi boo nga dem soxna si ci pësséef ak ci dogu ak ci xam li mu bëgg ak ci xam gu mu xam sëñ Fallou mii daa demal boppam ba ci buntu néeg bi mu yëglu sëñ bi ne ko kooku mu ne ko mën a may muuna mu ne ko bismillah nee na mu teg xéewal bi xamal ko ne ko ndab lii nii bi fi sëñ Touba nekkoon moom laa koy jox mu xéewaloo ko yow yaa ngi fi sëñ Touba làkk bëggu sëñ bi dong moo tax ma tànn laylatul qadr gii def ci reer bii nii Mbàkke di ci dàkk bëggug sëñ bi ak yërmaane sëñ bi ak ngërëmal sëriñ bi sëñ Fallou daa ànd ak aal ci pësiifu soxna si keroog ba keroog bi mu xéewaloo ci ndab li ba noppi da daal di ñaanam nekko daal yàlla na doon gileem yaakaar naa laylatul xadar man gileem laylatul xadar ba laylatul xadar laa koy gis màggal gi sax ay nag laay gis ak ginaar loolu barkeelu làmmiñu Cheikh Mamadou Fadal soxna may mooy Pastef fii këru Pastef la lii Pastef moo ko ko may lii yitte jukaay moo ko ko may moo tax doomi Sëñ Tuubaa yëpp dañ ko bëgg lool bis bii bu ma saa jot dañ fi daa bàggante waaw bis bii bu jotee dañ ciy bàggante yaakaar naa gis ngeen nataal bu raar benn si jaada gu ndaw soxna may mun ak sëñ Saaliw ñu bokk nekk benn si jaada gu ndaw boo xam ne da ngay gis sëñ Saaliw ak soxna may ñu bokk nekk si jaada gi ndeysaan cofeel gu ñu amoon ci moom ak bët bu ñu ko daa xoole sëñ Tuubaa gi moo taxoon bisam bii dañ ci daa jàpp bu baax a baax a baax noonu it la ko sëtëm yi nga xam ne ñoo ko doon ginnaawam yëpp di ko ci taxawoo mbokk yi buñ bëggoon a jël ay pësteef ci yoonu murit fi la ñuy fanaan dama ne woon bu may wax pësteef ci yoonu murit kenn laay tudd waaye fi ne boo tuddee kenn yu baree bari dañuy ñëw sa sa ci ci sa kanam am na ci ñoo xam ne lañ jaayanteeg sëñ bi ak lañ waxanteeg sëñ bi seen diggante la yam la leen sëñ bi wax ak la leen dikk yomal xiyaam lay feeñ ëllëg seen pëstéef moo tax ñu ne ko dara yi àdduna soxlawuñ nañ bàyyi ba ëllëg bari na ci mag ñi am na ci ñoo xam ne ca bis ba la gërëm yeewi leen am na ci ñoo xam ne ci ay bis mu yeewi leen am na ci ñoo xam ne ci ay weer am na ci ñoo xam ne du leen a téye ba keroog muy wuy ji boroomam kon day mel ne mi ngi guddi ca jataay bi mi ngi bëgg a yàgg te yaakaar naa tomb bii nii ñu ci mën a wax bari na tomb bu mujj bii nga xam ne ci la ñuy tëjee nag mooy liy maye pësteef ndax day mel ne pësteef neex na kat waa lan moo koy maye yitti ju kawe lu koy maye ñu tànn ci ñetti tomb rek yi koy maye bari na nag bi njëkk ci bi koy maye mooy di ñaan yàlla yàlla tëju bunt yi nañ koy ñaan yu rëy yi suñ boroom dafa bëgg ku koy ñaan lu rëy man yéemu naa ci jàmm bi nga xam ne sax lu tuuti lay ñaan yàlla booy ñaan yàlla da nga koy ñaan lu rëy rëy rëy damay faral di wax gone yu ndaw yi may jàngal naan leen koo yee guddi xaaju guddi mu yeewu nga ne ko loo bëgg lan mooy say ahdaaf lan nga bëgg ci àdduna mu naan ah, xaaral ma xool man de xamal ne kooku du koy dem kooku moom du dem xaaral ma wax li bëgg ak samay ahdaaf ki nga xam ne da nga koo woo muy wax rek bëgg naa nangam bëgg naa nangam nga ne loolu da koo bàyyi cim xelam mi ngi koy ñaan mi ngi koy sababu kooku mooy nit comme li ñu waxoon ci tàmbali bi ne personnalité bi doomu aadama mi ngi feeñee ci ay bëgg-bëggam fi ne da ngay wax ak nit jàkkaarloo nit wax kenn laaj ko luy bëgg-bëggam mu wax la lu tuuti ne moom la soxla gis koo xam ne mbubb mu woyof la sol waaye boo ko laajoon boo waxoon nga dar sa gémmiñ kon nit day rëy bët loolu la wolof di wax del ñaan kon lii maye pëstéef ba ci njëkk mooy di ko ñaan yàlla waaye ñaareel ba mooy li ngay ñaan yàlla nga di ko sabablu di ko sabablu bu baax lépp lu la koy may nga di ko sabablu waaw lépp lu la koy may sañ Tuubaa ba mu ñaanee yàlla bokk ci ahlu badrin daa sabablu gu méttee métti soog koo mën bu ñetteel bi nga xam ne nag bokk na ci li baax lool ci nit ci di ko dolli pësteef di yëkkati ay ay ay ay yitteem mooy di jàng jaar-jaari gaañu baax soxna jaara Buso daa mas a sëñ mag bi ne bokk na ci aaday gaañu baax ñi de mooy mu gay ah, bokk na ci aaday gaañu baax ñi de mooy daaw ñu nelaw guddi nee na bisub keroog ba mu toqee ci nopp sëñ Tuubaa la bàyyee tëdd ci lal ca booba ndaw la woon kon di leen nettali di nettali ndaw ñi gaa ñu baax ñi niñ nekkee woon loolu dana yokk pëstéef dana yokk yitte ju kawe li nga xam ne nag mooy xañe pëstéef ak yitte ju kawe daa mel ne loolu moom daa tasaaroo ci jamono lool looloo tax fi ne lu baree bari ca amoon ci xeeti maye ñun mënuñu ko am ñun bu ma waxee ñun sama bopp laa tàmbalee ñun ñi nga xam ne dañoo ñàkk pëstéef ñi am pëstéef moom ñi ngi koy am ba tey ba ca njëkk mooy bëgg àdduna du may yitte ju kawe faaw da ngay wan àdduna ginnaaw bu ñaareel bi mooy ragal dee lool sib ko lool pëstéef boo ko bëggee da ngay ñeme da ñeme bu baax a baax moo lay may yooyu sëñ mag ba mu jaayanteeg boromam li mu wax boromam mooy ruugi néew sama loxo waaye lu dul ruugi daal bu omatee lee ruugi lu di métti rek mën naa ko muñal sama bopp kon dangay ngay ñeme luñ man di wax ak lu ñu la mën di tegal ak gas ah, kàmb yu ñu la man di gasal nga ne ca rek xam ne loolu moo koy may li nga bëgg bu ñetteel bi nga xam ne day xañee yu ma yu yu kawe yi mooy di mébét di toog di mébét rek ca doo def dara fu ñu la fekk nga naan ay baax lépp ay baax sëñ bi defar na lépp dëgg la yooyu terme baax na lool sëñ bi defar na lépp léppay baax incha allah ay baax ca ña nekk ca yoonu baaxoo waaye di jéem a sawarlu ay toog muy dox ak baat yooyu nga xam ne day day wàññi pasteef yooyu dañ ko war a génne ci suñ bopp sëñ Mourou Moustapha daawut toog muy dox sëñ Fallou daawut toog muy dox Cheikh Ibra daawut toog muy dox Cheikh Issa Diène daawut toog muy dox dañ cee nekkoon bu baax muy dox ñu nekk ci muy dox ñu nekk ci muy dox ba am li ñu am bu ñetteel bi wala bu ñeenteel bi nga xam ne day xañe yu kawe yii nga xam ne yàlla da koy may mooy sàggat sàggan lool moom it day xañe yu kawe kon am pëseef am jiddiya bu baax a baax a baax yii mooy maye yitte ju kawe yii mooy xañe yitte ju kawe kon mbokk yi day mel ne lii lañ waajaloon ci waxtaan wi ñoo ngi jéggalu lépp lu ci dëng rek euh, ñu xam ne ci suñu matadi la lépp lu ci jubit lu ci tegu ci yoon ñu xam ne ci yàlla suñu borom la ak baaxul sëñ Tuubaa ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.